professeur Malick Ndiaye euh, maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay. am nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi yow yaay coordonnateur comité d'initiative des intellectuels du Sénégal nga bokk itam euh, ci comité directeur bu front des citoyens pour la refondation de la République alors professeur da bind bataaxal boo xam ne yaa ngi ko jagleel ñi nga tuddee saxaabay appaire yi ñu euh, boddi boo ko mën a waxee noonu ak Garmi Macky 2012 euh, ci boobulee bataaxal nag nga ciy wax problème mu mandat yi nga xam ne Sénégal ci la jëm ci atum 2022 ak 2024 euh, nga jàpp ne nag faaw ñu indi ay coppite ci alternance euh, bi nga xam ne mooy ñaareel bi au lieu que ñuy wax waxi troisième alternative est-ce que mun nga ñu tekkil sa kàddu yooyu nga tënk ci sa bataaxal bi bismillahi rahmaani xam nga ñun ay taalibe lañu professeur la lu leer la ndax jàng bi diplôme bi ak métier bi waaye tamit ci jikko nit day nangu wàccee boppam taalibe en arabe mooy koo xam ne da ngay wut xam-xam man damay wut xam-xam damay gëstu damay dem di laajte damay déglu damay jàng damay wàcce sama bopp léegi bi ma gisee ne ñi àndoon nag Senghor ak Mamadou ànd bu rafetee noonu gëj na fi am Senghor nekk président Mamadou Dia nekk président de l'Assemblée waaye la ko yàq lan la ànd bi nga xam ne Ablaye wàdd bi mu ñëwee àndoon na ko ak président Macky ak Moustapha Niass ànd bi dafa dem ba yàqu ànd boobu rafetoon na bi ñuy commencé ñoom ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo àndoon ak Macky ma leen di wooyee saaba Moustapha Diakhaté Euh, ñëpp xam nañu Thierno Alassane Sall kon ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak moom wala Moustapha Lo Moustapha Cissé Lo bu ñu demee ba nga xam ne dafa mel ne seen xalaatu démb ak seen jëfu démb dafa mel ne tey jii daf ko dàq bu boobaa ñun ñi nga xam ne dañuy gëstu nangoo wàcce suñu bopp nekk ay taalibe dañuy wax ne gaa ñi dañu def ndànk ñu bàyyi saaga yi bàyyi xasante yi bàyyi wax yu bon yi ñu jéem a def euh, liggéey boo xam ne li fi Senghor defoon ak Mamadou Dia lu baax ba am ñu ko yàq. li fi ab Wade defoon ak Macky ak euh, Moustapha Niass ak ñeneen ba am ñu ko yàq. kon dama bëgg rek ñu daal di xam ne euh, waxu deux mille vingt quatre maanaam troisième mandat. Mm. ëpp naa perte sa temps ba di saagante ci loolu déedéet li am mooy fii ak lu mat at rek deux mille vingt de bi. Mm. dana ñëw deux mille vingt deux bi boobu assemblée bi liñ ko joxoon pour juróomi at bu jeexee mais assamble nationale dañ koy defaraat. Mm. buñ ko defaraatee nag loolu moom la ñuy wax defaraat jikko réew. réew boo bëggee defaraat jikkoom da ngay dem ci pénc yi. da ngay waxtaan ci penc yi pencoo boo ko defee euh, bu dee yoon suuf si daf ci am jafe-jafe hmm. ñu waxtaane ko fañ ko war a waxtaane bu dee droit du travail bi maanaam liggéey li sa njëriñ bu dee affaire informel bi la comme ni koy waxee ñoom euh, UNACOIS Yeesal ñoom euh, Alla Dieng bu dee loolu la bu dee affaire diplomatie la bu dee sunu affaire patronat bi la yal na yàlla yërëm Mansour Kama mi fi jógee waaye liggéey na. Mm. wala ñoom affaire presse bi muy ñoom Babacar Touré wala ñoom Sidi Lamine Niass problème yi nga xam ne yëpp posé nañ ko fii ñi benn at danañ ko mën a waxtaanaat defaraat réew mi. Mm. loolu moo tax ma ne képp koo xam ne danga nga liggéeyoon jàppale candidat euh, Jean-Yves. maanaam Macky hmm. defal ndànk bàyyil saaga bàyyil di yooxu del bind dem wuti xam-xam ndaxte fii ak at rek danañu defaraat assemblée bi bu ñu defaraatee assemblée bi loolu nit ñi war a préparer hmm. kon man dama bëgg ñëpp xam ne muy Senghor ak Mamadou ja muy Abdoulaye Wade ak ñi mu àndaloon muy Macky ak ñi ko mere tey mais ñooñu ba ñuy commencé kenn gisul woon ay rëq-rëq wala ay yu bon. Mm. kon dafa am Sénégal loo xam ne moom moo nekk ci suuf di door yat di yàq nan def ndànk ba waxtaan ci ñu defaraat réew mi yàlla musal ñu waaye nag. yàlla bala ma leen musal nga jëf ci loo xam ne moo yoon wi mu la wax. d'accord ñi kon voilà. Mhm. léegi ñu ñëw ci livre Thierno Alassane Sall bi li mu li ci mbóot yëpp noo ko jàngatee ak tontu yi bàyyeekoo euh, ci euh, ñi fare ci nguur gi nga xam ne euh, fa bokkoon ay at wala ci ginnaaw. xam nga Thierno Alassane def na liggéey boo xam ne ak am na àndandoo bu rafet bu mu ànd ak Macky ñoom ñoo xam. nu mu mujje léegi bu bindee livre muy téere wax ci yoo xam ne il faut ku ko fekkewul nga ne yoon war na ci wax hmm. mais kooku jasta saaga kon ñi koy saa ak di ko waxal yu bon ak euh, li nga xam ne moom moo ko wax loolu yëpp bu soobee yàlla dafay nuroog li Abdoul mbay di wax ci yenn affaires yi bi mu nekkee premier ministre. Mm. wala li ñeneen ñoo xam ne comme ñoom ay Moustapha Cissé wala ay ñoom euh, Moustapha Diakhaté ñe yi daal bare nañu wala léeg-léeg sax ñoom Youssou Touré dañuy wax mm. di saaga fii kon dama bëgg rek ñëpp ñoo xam ne ñoom ñoo àndoon àndu nawle ak Ablaye Wade. Mm. ak euh, Senghor. ak euh, Macky nañu delloo si seen xel ànd ak jàmm. di ne tek waaye bàyyi wax ay jëf yoo xam ne dana yóbbu réew mi foo xam ne duñu du li gën ci ñun. kon na nga jàpp ne bi nekkee ci nguur gi xëy na ci lañu ñu waroon a wax yooyu ngir ñu joyanti ko. ah professeur malik Ndiaye de moom taalibe taalibe malik Ndiaye de. Hmm. gars di ko wax Jean-Yves. Hmm. Jean-Yves de moom ci photo yu ministre am la toog bind livre boo xam ne où va la république. Hmm. ni ko Macky foo ñu jëmee. li nga ñu waxoon dafa mel ne da nga koo ragal li nga waxoon M23 ñëpp jug di la tàccu yow ci sa bopp nga yëkkati say loxo ca ngoor jaaraama li nga xam ne waxtaanoon nañ ko ba nga ba ñu bind ko muy li ñuy wax sa profession de fois nga waat ne da nga def fii gouvernance sobre ak yëpp li nga wax ne yi nga waxoon dafa mel nag ci am problème. kon na ko. professeur. Mm. moom dafa toog ci photo yu ministre am bind loolu yëpp teg ko ci kaw taabal ji loolu la ñuy wax ñun àndu nawle hmm. maanaam li ko pulaar di waxee ndi maagu neddo ko golle e balle loolu li mu tekki mooy nit ki sa wax ak sa jëf sëñ Abdoulaye wax na ko nee na sa jëfu démb sa jëfu tey nu nuroog li nga xam ne yow yaa ko waxoon hmm. kon nanu góor góorgóorlu dama bëgg rek ñu bañ a merente parce que bu ñu merantee rek caaxaankat walla ñoo xam ne dañuy nëbbutu danañ ñëw dugg ci sunu biir yàq sunu dëkk jël sunu pétrole jël sunu suuf jël sunu alal jël sunu kirsan jël sunu lépp dem kon loolu buñ ko bëggee sànni fële mm-hmm. danoo war a xam ne euh, nanu waxtaan ci sunu biir waxtaan ndànk mooy xam ne képp ku am loo xam ne da ci mere Ablaye Wade wala nga mere ci Senghor wala nga mere ci Macky mën nga ko wax ci tey fii ak at rek bu élection wu député yi ñëwee mais Sénégal mën na defaraat réew mi defaraat jikko yi ndaxte élection yooyu moom moo fi jiitu leneen jiituwu fi nag mhm. xam nga ne moos euh, mandat ñi ñuy wax les maires xawma les collectivités locale jeex na depuis mhm. xam nga ne loolu taxul kenn jóg te ñoom élection bi ñëpp war a préparer léegi nii. du élection ay locale élection législative yi la. kon moom moo tax ma ne Thierno Alassane Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo ak ñoom yu Touré gars yi mer fii mer fële mer ñëpp ñoo xam ne Macky def dañu ne Macky moo leen dindi nañu ànd ak dal nañu seet ne fii ak at ci élection député yi nga xam ne ñëw na ba noppi. foofa la ñuy waxtaane yenn yi waaye li dal Mali dal Guinée dal Côte d'Ivoire bëgguma mu dal Sénégal hmm. kon nanu dellu si ñu wut li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne mooy saafara hmm. comme ni ko Alla Dieng di waxee maanaam chifaay d'accord Matlabul Chifaay mhm. voilà alors professeur Malick Ndiaye bu ñu liree sa bataaxal bi dafa mel ni yow transhumant yi maanaam ñi wàll si euh, ñoom lañ gën a daal jox cër gën leen a fullaal ci biir parti bi ndax euh, ni nga tuddee sax sa lettre bi Garmi Macky 2012 ak saxaaba APR yi maanaam ñu fi nekkoon ba dara dul dara est-ce que boobu gis-gis nga am ci ni yëf yi doxee waaw man dama euh, gis ne ñi nga xam ne ñoom daal ñoo jàppale woon dëgg-dëgg Macky ba mu jaral leen mm. lu bare lu rëy dafa mel ne dañ leen dindi ah man nag bokkuma APR man bokkuma benn parti mm-hmm. waaye li ma gis mooy euh, ñooñu ñu bare wax nañu et eh, Thierno Alassane Sall ngi nii ci la bokkoon kon mm-hmm. euh, Moustapha Cissé Lo ak ñoom Moustapha Diakhaté yooyu mm-hmm. ñooñu dama bëgg ñooñu xam ne fii ak ci élection législative yi lépp loo xam ne war nañ ko defaraat mën na nekk léegi nag ñi ngi may wax Garmi. Hmm. Macky 2012 mais Garmi Macky 2012 xam nañ seen bopp. d'accord jarul ma leen di tudd. waaw léegi yow nag sa ànd ak président Macky Sall est-ce que kontaan nga ci est-ce que gis nga ci sa bopp. mais man Macky dama ko fan ba léegi. daa hmm. la wax dama ko fan ba léegi. dara wàññeeku ci ndaxte euh, non non c'est-à-dire xam nga man. àndu nawle lay def àndu hmm. nawle mooy ba ma ko waree wax hé président foo ñu jëmee yaa ngi yàqu yaa ngi yàq yaa ngi jël sa rakk sa jabar ak lii di leen def lii ay Farba Ngom ay ba ma ko ko wax ba ma ko koy wax maa ngi toog ci sama photo yu ministre kon loolu mooy àndu nawle hmm. man bi may wax loolu bind ko livre bi nii booba laa gën a faamaki ndaxte moom moo woo euh, lu mat euh, juróom benn fukki ay borom xam-xam ay artistes hmm. ay acteurs culturels mooy 4 janvier ñeenti fan ci weeru janvier 2014 ca biir présidence de la république boobu Mimi Touré ngi toog Mimi doo ko doo ko mim booba euh, Ismaïla Madior conseiller la ma nga fa kon bi ñu toogee ak sama xarit bu dem ndeysaan Amidou Dia yàlla na ko yàlla yërëm bi ñu toogee waxtaan ak ñëpp mais Macky moo ne intellectuel yi ak ñi boroom xam-xam yi na ngeen leeral lépp lu xew Sénégal li nëbbu génne leen ko kon Macky loolu nga ko faawee ba léegi waaw mo léegi bon Macky mhm. gis naa ne li mu bëggoon a def mhm. mais ñi mel ni man ak ñeneen ñun loolu luñ continuer mhm. moo tax ñu ni ko nag président yow li nga ñuy yabaloon nga jox ñu ko may ñu ko ne laaj naa leen ngeen seet lépp lu nëbbutu ci Sénégal ngeen génne ko ñun ñu ngi koy def d'accord waaye yow dafa mel ni da am tey problème kon ñun du ñu ànd mukk ak ñi koy saaga di ko kii ñun mhm. dañu ne li ñu waxoon nañ ko def. Mhm. Euh, yoonu yokkute bi nañ ko def. defar gouvernance li ñuy wax sobre et vertueuse nañ ko def. Mhm. kon jikko ji changement yeeg yëpp li ñu waxoon. nañ ko def loolu moo tax. Euh, man ma gis ne Sénégal bu nu defee ndànk ba waxtaan. ci waxtaan li ñu war a def. Euh, danañu am dëgg. Euh, xëy na ñëpp sax du ñu mun a àndandoo. Mm-hmm. waaye jàmm mooy sunu doole. Mm-hmm. bu fekkee ne sunu ngëm-ngëm yi euh, weesuwul. kon nañu góorgóorlu rek. Mm-hmm. soobee yàlla. jërëjëf waaw mais waaye bu kenn daw bu kenn tiit bu kenn saaga. te nanu wut yat bi nga xam ne nag moom mooy dóor lépp loo xam ne du dëgg. ak lépp loo xam ne du noonu. maanaam matlabul shifaay min kulli daa mhm, jërëjëf professeur Malick Ndiaye amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi yaay coordonnateur comité d'initiative euh, intellectuelle euh, yu Sénégal euh, bokk itam ci front des citoyens pour la refondation de la République jërëjëf Ndiaye